Euh, man benn question laa bëggoon laaj mooy Aliou Sall démb après démission dafa teg loxoom ci kaamil waat lan mooy valeur waat ci kaamil am ñoo xam ne am na yenn école yi nee si yàlla lañu war a waat pas ci loo ci indi comme tontu. waaw loolu yëpp je crois que affaire njëg la ku njëg da def loo xam da nga def loo xamul mais moom mooy koy jox kii bi. CDC tegalu ko kaami moom nag def na loolu parce que nit ku ñëw rek la nga tolloo rek loolu ngay def la nga mën def loolu ngay def doo seet jaadu doo seet jaadu doo ko lor nit waaw bu doon lu ñu noonu ne nan la demee waaye toujours ngay dégg olof naan la billaay mën naa teg sa loxo ci kaami billaay mën naa teg sa loxo ci kaami <clears throat> rek mu teg loxoom ci kaami ci li ne culture boobu rek loolu la accepté hmm. c'est culturel ndax dafa nekk loo xam ne lu culturel la. lan mooy événement culturel la loolu wax nañu ko. non lan mooy valeur waat bi ci kaamil la. dama ne la ci ñun ñun ñaar la ñuy wax teg teg sama loxo ci safara ak sama loxo ci kaamil ñun loolu la ñuy wax mooy suñu culture. culture bu nekk nag élément yi mu am même bu dee yeneen valeur la am feneen nañ bàyyi loolu feneen jël nañu suñu bopp ñu jaar la ñu laaj ndax def nañ comme arabe yi wala comme perse yi wala comme. ñeneen yàlla la mu yàllaay daal def nañu comme li ñu doon ñun li ñu doon ñun loolu valeur ci ñun xam nañ ko sinon bés bu ne nit koo xam même xale bu war naa ko ci kaani billaay ak ma teg sa bu ci dee safara ma waat est-ce que jóge feneen di waate safara non <coughs> bu ñu ko xeet mu ngi mel ni suñuy bëgg a yëpp suñuy suura suñuy kalma ñangaan mais ci ñu la bokk